mbokki internetu seen acti yi ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di leen wax ne rek dal leen ak jàmm fii si seen chaîne youtube seen acti yi tey nag duñuy daal di ñëw ak yéen ci li gën fës ci xibaar yi xibaar yi ni ki tey nag dañu ko ubbi ak bat buzz si kaw toile bi bi lépp bad buzz nag dafa dox ci diggante waykat bi di Bambaly Seck Bambaly Seck ku ko dégg xel day dem si Wally Ballago Seck ginnaaw nag fan yee ci ginnaaw moom di Bambaly Seck Seck dem nag fi nga xam ne moo di ab maison de production bu wuyoo ci turu Subatel Musique moom nag bambali Seck nag fan yi nag ñu ngi koy ngawti ngawtee ci kaw toile bi li ko waral nag du leen lu du ab ndaw suy wuyoo ci turu Tida dëkk foofee di Médina moo génn rek amal ab interview ci ñi nga xam ne ñoom la ñuy woowee ay journaliste ci presse bi moom rek Tida fësal ni rek dafa amak doom ak ki nga xam ne moo di bambali Seck mais doom bule ki lee di Bambaly reconnaître ko ko li ni mel nag xew na ñeenti at suñu ginnaaw moom nag toog na ba tey nag daal di fësal lekk ñàkkum nangu bi nga xam ne Bambaly Seck nanguwu ko bi lépp doom bu ñu sekk jur moom nag di tidaa parewul ndax rax na si doole nekki moom du jabaru Bambaly Seck te génnut ak Bambaly Seck mais nag Bambaly da daan def rek saa yu ko soxla woo ko rek ñu nekkal ko ca ba tax na nag doom juddu na ci te kile di Bambaly Seck nangul doom ji fu internet nag nekk ci réseaux sociaux yi ñu ngi ci àddu ñenn ñi sax jàpp ni ku jigéen ki amul pudeur ñenn sax di wax ne kile di euh, Tida dafa yëg rek succès bi Bambaly commencé am mu bëgg koo yàkkal ñenn ñi nag dal dal nañ ci ci kaw Bambaly Seck di xam ne rekk nag ak lu mu mënti mel rek war na nangu li la xam ne moo di ab doomam waaye nag xibaar yi day jógee ci bat buzz dem tuuti xuus ci langue politique langue politique gi nag tey ki ko waral du kenn ku dul Ousmane Sonko ndax nag kile di amateur ci làmb nekkoon sax ab présentatrice su làmb di ki nga xam ne moo di Malick Thiam Thiandoum moo def ab interprétation jëmale ko ci leaderu Pastef bi di Ousmane Sonko moom nag di Malick Thiandoum mi ngi xam ne ni rek que ki di Ousmane Sonko dafay dund li nga xam ne moo di harcèlement ak ay violence xokkatal yi ñu koy xokkatal fii ci réew Sénégal moom nag jàpp na li ne mel du dëgg te du yoon waaye ba tey dañuy desandi ci wàllum grade ci wàllum trophée niki nag altine bu ñu génn yemoo ko fukki fan ak juróom ñaar amanoon nañ cérémonie bi xam ne nag moo di Karim Benzema di ab euh, nationalité français mais di évoluer ci club boobu di ci évoluer foofee ca Real Madrid moom nag di Karim Benzema gagné na meilleur euh, ballon d'or waaye nag bu ñu waxee ballon d'or xel day daal dem ci Sénégal ndax kile di Sadio Mané li nga xam ni moo di prix Socrates nag ba tax na nag fépp fu waay nekk yéene na ko te di ko ba nag fu waaye nekk rek mbégte la ànd rawatina askanu Sénégal di xam ne rek beneen ballon d'or bi di ñëw incha allah day doon ballon d'or bi nga xam ne kii di Sadio maane moo koy moom ndaxte mérité na ko. xëy Socrates nag boo ko déggee xel day ci wàllum humilité wàllum respect ak wàllum social moom nag di Nacho ñu gën koo xam ci Sadio maane malgré nu mu nekkee balkat bu mag bu évolué foofee ca Bayern na nekk ci sélection bu Sénégal fépp fu waaye nekk ci àdduna rek. rek rafetlu na jëfam jooju ginnaaw ba ñu rafetloo te di bég loolu ci talent bu mu amal ci wàllu football dañuy dem tuuti foofee ca réew Paris waaye buñ ne Paris xel day dem ci France di capitale bi lépp réew Paris nag ku ko dégg xam na ne ab ku ko dégg rek xel day dem ci émigré yu Sénégal yu nekk foofee ca Paris di nag ab réseau bu dox ci diggante ñeent nit yoo xamante ne ci askanu Sénégal dañuy juddoo mais nekk foofee ay émigré ca Paris doon jaay drogue ba daal di yoon teg leen loxo foofee ca Paris diggante Saint-Denis ak Saint-Étienne ñoom nag fa lañ doon amalee bi lépp trafic de drogue ni ki nag 12 septembre ba ñu génn la leen police daal di teg loxo ba tax na nag fële li nga xam ne moo di France 24 def nañ ab li nga xam ne moo di journal jëmale ko rek ci natif de Louga yooyu nekk foofee ca Paris di def li nga xam ne moo di trafic de drogue. fan yu jëm nag ci wàllu cuvette yooyu nekkoon foofee ca terre di train express régional bu pièce bu ñu indi fii ci Sénégal am nag ay malfaiteurs yu ñëwoon jël li nga xam ne moo di baax yeek yooyu noonu waaye li mel nag nemmeeku nañ ko niki démb foofee ca Grand ndakaar li nga xam ne moo di BRT bi ñuy waaj def di app ay fil ak ay câble électrique yu jëm ci lépp train la nag ay malfaiteurs daal di jël daal koy yóbbu li ne mel nag askanu Sénégal ñu ngi rafetlu rawatina nag autorités yi nga xam ne nag dañoo nekk ci liggéeyub réew mi mbokki internetu SENactu TV tey nag li leen leen indiloon ci li gën a fës ci xibaar yi di leen jox dig daje ëllëg waaye laata loolu woy leen di abonné te bu leen fàtte di appuyé wu ci cloche de notification leen fàtte di appuyé wu ci cloche de notification bi pour di mën a am suñu ay vidéo à la prochaine ci yeneen rubrique fii ci seen chaîne YouTube SENactu yi